Kumba Jaxate amaana mën naa bett ñu baree bari waaye tamit ñu baree bari itam du leen bett ginnaaw ñu dégloo kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci premier ministre Ousmane Sonko ba laarale ci sax mën naa ne ñenn ci wala bokk euh, président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar waaye njëkk li ma ci wax mooy péexte gu ëpp moo baaxul péexte mooy liberté gu ëpp ci nit baaxul maanaam yolomal nit ñi ba lu neex waay wax wala lu neex waay def xam nga ñu baree bari dañ naan nguur Macky Sall jafe-jafe bi li fi mu nekkoon mooy ku ma ku wax ñu jàpp tëj waaye dafa am fooy féete wala yenn wax yoo xam ne boo ko jëmalee jàpp la nag day daal di gis nga gouvernement bi muy doog a toog yolomal gi dafa ëpp trop ñu lu neex waaye wax nañ ko wax jëmale ko ci président wala nga wax jëmale ko ci premier ministre Ousmane Sonko ndax ñu bari lañ doon jort mooy la woon jug na fi maanaam lu neex waaye wax ñu jàpp ko tëj ko kon ñoom bàyyi leen kon mënuñoo bu neem ñoo ko doon xeex léegi nag lu neex waaye mën nga ko lu neex waaye koo wax waaye dafa am loo xam ni Birahim wax na ko léegi nekkul Ousmane Sonko ngay wax lu ñagas Ousmane Sonko ji boppam mooy Ousmane Sonko ma nekkoon kujje daaw ren jii dafa am leneen lu mu doon dafa sol mbubb moo xam ni moom la Macky Sall soloon wala boog président Bassirou Diomaye Faye mbubb mi mu bu jëkkoon ba xam ne boo yëkkatee kàddu ko ñagas jëmale ko ci Macky Sall ñu jàpp la dafa am loo xam ni maanaam nit wut a xaar ñu di ko ko wax respect wor ma dañ ko war a jox ñi nga xam si ni wax dëgg yàlla ñoo nekk ci réew mi di doxal te itam Ousmane Sonko dafa sori gis nga Mabouba Diagne rek boo ko jëloon nga xam ne moo jiite agriculture mais am na wax yu ñakkas yoo xam ne boo ko waxee wax nga ko mbooleem koy baykat fii ci réewum Sénégal ndax moom moo jiite mbooleem baykat yépp Ousmane Sonko tey boo yëkkati benn kàddu gu ñagas jëmale ko ci ko ci moom koo xam ne jamono ji yaa ngi nekk ci biir réewum Sénégal ndax gouvernement bépp boo leen jëlee Ousmane Sonko moo ko jiite Ousmane Sonko boo yëkkatee kàddu goo xam ne wax dëgg yàlla rafetul sax ñu di ko dégg ci ni mu ko waxee Biraay wax na ko léegi boo jëlee Ousmane Sonko nga teg ko nga teg Ousmane Sonko daa di yëkkati kàddu tuuma yi teg méngul ko Ousmane Sonko da Ousmane Sonko ci doxalinam Ousmane Sonko ci waxinam ak euh, ni mu mel wax dëgg yàlla méngoowut ak ñu koy dëkk ñu koy dendale ak borom ñaari tur loolu xel nangu nag la amaana sànnante ay xel wax ju ñagas waaye nag dafa jot am na wax yoo xam ne di ko wodd biaay wax na ko léegi rupture la ñu wax rupture nag mooy dakkal li fi newoon amaana li fi newoon tey maanaam gouvernement bi fi nekk tey ñoo ko doon def maanaam yëkkati yenn kàddu yi di ko jëmale ci gouvernement ba fi newoon amaana moo moo nekkoon mais bu dee rupture la ñu wax dakkal mboolem li fi nekkoon askan wi nag dañoo war a loolu ñoom i daan ni wax dëgg yàlla fi nekkoon nit daan yëkkati kàddu gu ñagas di ko teg ñenn ci gouvernement bi loolee nañ ko daal di dakkal te itam dafa jot sëkk nag ba jaxate wax dëgg yàlla ci gàtt daal li mu wax dafa ëpp te itam jàpp gi képp koo xam ne diglu nga kàddu yi ba mu jeex yaay doon xaar jàpp gi moo tax bi ñu ko jàppee békkib ñu bare bari ci waaye nag lañ ca mën a jàngale mooy gouvernement bi nekkul ni dañ fay ñëw rek ngir ne du jàpp kenn wala bokk lu neex waaye wax démocratie lañu bëgg nangam nangam ba tax nag nga koy jéggi di wax leneen loo xam si ni wax dëgg yàlla day jéggi dayoo kon daal lañ ci mën a jàpp mooy na nit ñi gën a am yar ak teggin te xam bu baax nañuy waxee. d'accord monsieur Silva Baye jàppam bettul kenn mais bon